les acteurs principaux yi nga xamante ni ñoom la waroon a ñoom la waroon a recevoir ba pare mu violé li nga xam ne mooy protocole additionnel bu CEDEAO bi ko ne président waroo mën a laal le processus à six mois sauf si y a consensus yow yaa kan nga am a consensus président kan la amal consensus ban candidat à l' présidentielle la président amal consensus ba nga xamante ni na élection yi ba tey mu woote dialogue bi nga xamante ne kenn en tout cas il a reçu des gens yi nga xamante moom moo leen nommé la majorité moo leen nommé wala bu ñu fa nekkee peut-être moom moo ne nañ fa nekk mm. donc Fatou encore une fois on est dans une nébuleuse bi nga xamante ni très difficile aujourd'hui de de situation bii nii président dem mais gëw ma mu dem parce que le président nee na day laaj avis conseil constitutionnel donc si le président avait été formel day bind lettre ne président conseil constitutionnel man président Macky Sall le 2 mais def na ko ci réseaux sociaux bi léegi ñi ñooy dem liir waa conseil constitutionnel mais attends tout mais c'est trop facile alors mais dégg nañu ñu ne ay ñoñam ñu ngi koy buux pour que mu démissionne kenn du parce que dañu bëgg reprendre at processus électoral bi léegi dans président Macky Sall bu bëggoon dafa bëgg dem le 2 c'est formel le 2 avril day bind conséquence constitutionnel dans une correspondance officielle ne man le président Macky Sall le 2 avril damay quitter ah, mes fonctions merci de prendre vos responsabilités hmm. par rapport ak loolu noonu mais président waxuloo dafa ne avis donc bu proposé waaw ah, parce que waa dialogue bi dañ ne na toog ba le 2 waaw léegi avis la mooy président bëggul dem le 2 bi muy wax nii nii di ñu ko forcer di ko répéter à tue mais le président Macky mais je te dis qu'il sera là même après le 2. Mm. je pense qu'il sera là après le 2. ji loolu ngay séntu mu toog fi après le 2 da nga gëm ne bëggul dem pourtant moom nee na day dem doyal na sëkk. waaw non mais xam nga le fait mu koy waxee sax dafa nekk loo xam ne rafetul ndax ñun dénkoo dénkoo wuñ ko mbir mi noonu. dañ hmm, hmm. koy dénk réew mi. Ah. daf ñu doon neexal. mais su demee ba di ko joxe tamit daf ñu war a jéggalu ndax dafa am ay rëq-rëq yu bari yu si am. mais doyal naa sëkk damay dem yooyu man pour man euh, rafetu euh, xam nga tey euh, président Macky Sall maanaam élection yi ñu dàq dañ ko wartoon dàq ndax sénégalais yi maanaam dafa am fu ñu président Macky xam Macky dafa xam sénégalais yi ndax faat tey Macky Sall moom dafa fekk togg gi ñu togg ba pare bay baaral ceebu jën hmm. Macky jën lu jum yeeg raxasu mañ tegoon nag jël maanaam cere jañ tegoon sa wet ga sotti ko seek lépp Macky Sall ko noonu la def. kon nekkatul ci ceeb. nu fu mu nekkatee ceeb dëkk bi yaa dëkk Sénégal. <laughs> kenn xamul ceebu jën la kenn xamul lan la. waaw kenn xamu ko de. waaw léegi. Euh, Macky Sall. Hmm. moom. ñun liñ naan ko jàppal dat ñun waruñu woon ko wax jàppal dat. Ah. loolu dañ fee juum. moo waroon a xam ne dafa war dañ ko waroon a dañ ko waroon a wax na ko. élection yi nga war a dàq. dàq gi nga ko dàq waroo koo dàq foofu la ñu waroon a ah, wax nañ ko de. non dañoo waroon a xam nga tey Fatou. tey bu deen tey par exemple tey man tey jii tey la la sax tey la lundi lundi ñu waxoon ñun ñëpp nga ne da nga ma amel un million nga ma koy jox ma ñëw lundi nga ne ma joxuma ko ñu jàppante man ak yow ba mu yàgg ma naan waa Fatou léegi beneen jour hmm. loolu la jàppaloo beneen jour yow yaa war a jàpp beneen jour mais ñun ñoo ñëw Macky Sall nañu dàq naa ko <laughs> ba pare ñu naan ko waa léegi jàppal ñu jàppal ñu jàppal ñu beneen jour beneen bi conseil constitutionnel dafa am loo xam ne man dama koo gis ci décision bi mu bi mu génne man ànduma ci mooy lan moom dafa ne président Macky Sall yéen amu leen sañ-sañ loi bi di sa mandat mënoo ko yokk mënoo ko wàññi da ngay organiser élection yi. voilà sa ak sa fin mandat foofu la waroon a yem. mais waru foon a yem ne. 25 février mënuñoo organiser élection conséquence warutoon a bind loolu. Hmm. dafa waroon a bind rek Macky Sall na ko organiser élection yi ak sa fin mandat. avant sa mandat sa mandat di jeex organiser fi élection yi. mais hmm. conséquence dafa ne le 25 février. te jamono jooju ñoo ngi woon ci dele yi jamono jooju mënoon nañu organiser élection yi conseil constitutionnel may leen fuñ jafandu mu ne leen yéen la 25 février mënu leen organiser élection yi maanaam techniquement matériellement juridiquement fan la ko conseil constitutionnel teg lan la xam ne matériellement matériellement moom kan la waxtaanal xam nga xamuloo kan la war lan moo waroon a xew mooy dana ko fii ak sa fin mandat organiser fi élection yi président Macky Sall wërtoon a woote dialogue ndax moom dafa gaay na ko wóop mu ne consultation gaay na ko wóop mu ne concertation te yëpp benn baat la. <laughs> Ah, ay synonyme la rek. benn baat la ah, léegi Macky Sall warutoon a woote dialogue xam lan la waroon a woote ñaara mbir waroon am dafa waroon a woo waa ministère de l' intérieur ndax man dégg naa société civile bi ñoom dem nañ ci ministère de l' intérieur mu ne leen élection yi mën nañ koo organiser avant le 2 avril Macky dafa waroon a dem ci ministre de l' intérieur. ndax pare 2 avril man ngeen fee organiser élection yi buñ ne ko waaw mu ne kaay leen ñu ge ministre bi nee fii 2 avril mën nañ ko fee ja mën nañ ko fee organiser léegi kaay leen ñu xool intervalle bi fii ak 2 avril ban jour moo si baax mais Macky jëful deful loolu yow conseil constitutionnel bind la na la avant sa fin mandat nga bind ne naa ko jëfee Macky Sall ba mu bindee naa ko jëfee phrase bu mujj bi suuf waaye damay def consultation <laughs> loolu loolu kenn waxu ko ko ndax yow bu dee conseil constitutionnel. da nga dem sa assemblée national mu ne la assemblée nationale suñ te yokk nan la ab jalagub jam ñaajo xam na ña fa nekk kenn xamu leen mën a mën a yokkee mën a yokkee deux deux juin Macky Sall Macky Sall loolu mu bind conseil constitutionnel avis boobu hmm. waru leen woon koo laaj conseil constitutionnel avis bi bu ñëwee daf ko doon xotti waru ko woon liir ndax xam lu tax dañ na ko yow organiser élection yi fii ak sa fin mandat Macky Sall jaloo dialoguer wala buy concerté wu na concerté wu intervalle boobu su demee nag ba nga xam ne mënut a nekk ci diggante boobu mu bind conseil constitutionnel na leen intervalle bii ngeen ma wax kat na ma na ma ma dëgg fi élection yi mënut a nekk. joxe ay raisons yu valable mu bind leen ne leen mënut a nekk. mu bind leen ne leen mënut ta nekk. conseil constitutionnel moom de dafa am dafa am ay pouvoir article 34 dafa am pouvoir yu may conseil constitutionnel maanaam da leen a may yéen na leen yéen lépp loo xam ne dafa jëm ci intérêt général wàllum stabilité wàllum sécurité euh, wàllum mel mel noonu. am ngeen sañ-sañ jël yenn dogal yi tey par exemple tey fii biñ na fi léegi euh, kuy xam nga fee candidat yi maanaam loi bi loi bi dafa ne loi bi dafa ne booy voté yépp nga war a jël mais fii waxtaanoon nañ fi conseil constitutionnel bi génne 2017 bañ na léegi mën nga jël cinq mën nga jël cinq mën nga jël cinq mooy bi ñu amee 47 liste ya pour loolu dañ ko loolu dañ ko loolu dañ ko waxtaane woon léegi nag président Macky Sall su demee avant 2 avril mu démissionné ñu ne dañuy jël nguur gi jox ko assemblée nationale Amadou Mame Diop man pour man loolu erreur mënu koo passé ndax passation de service entre ñaari ministère bokkul ak ñaari mini ñaari président président bi dafa am loo xam ne ay secret d'état la ay raison d'état loo xam ne président bi kese moo ko war a xam mu war a toog ak président bi jébbal ko lenge yi wax ko na ko compte bancaire baa ngi nii accord yi lañ am réew mi lii ak lii moytul lii ak lii lii ak lii lii ak lii te ñun loolu lañ xam loolu la président Macky Sall waroon na def su ko deful nag li mu war a def mooy force su mu def passation de service gis nga su ko deful démissionné loolu dafay nekk loo xam ne dafay ñaaw dafay gën a ñaaw te te bu toogee moom ba 2 avril jot même bu toogee ba 2 avril jot conseil constitutionnel moom ah euh, fi mu ne wax Macky Sall na ko dem leen organiser élection yi 2 juin. sañu ko ko wax gis nga bu ko ko sañoon bu ko waxee day weddi boppam. day weddi boppam su ko ko waxee xam lu tax ndax yow assemblée nationale dafa ñëw na neuf mois nga ne ko loolu du fi amee mu sañoo yokk benn fan. Mm-hmm. ñee ñëw na ko deux mois laa yokk. da leen war a wax da leen wax na sañu leen yokk deux mois yéen xam nga lan ngeen xam lan ngeen man fii ba 2 avril ngeen moom wax naa leen organiser les élections yi bu ngeen lànk yi yéen a lànk ndax conseil constitutionnel Macky Sall dafa lëjal ceeb bi yàq affaire yi jaxase affaire yi ñun ñu tumuraanke daw ci conseil constitutionnel mu yóbbuwaat ñu si Macky Sall ma ngi mel ni ku la ñamal benn xiir nga daw wut ku la àtte kala àtte yóbbuwaat la sa kala ñamaloon kala ñamaloon xiir ga mais Macky Sall dana leen jëlee affaire bi conseil constitutionnel nañu delluwaat leen si Macky Sall mi la jël newaan Macky jëlal xam nga moo tax mu wax ak Macky Sall ne autorité administrative mhm. mais kan mooy autorité administrative mhm. autorité administrative mooy administration bi administration mooy exécutif Macky Sall mooy exécutif te conseil constitutionnel bi ñu bindee ne autorité administrative kan moo leen tontu Macky Sall moo leen tontu DG tontuwu leen ministère de l'intérieur tontuwu leen Macky Sall moo xëy tontu leen na leen naa ko jëfee Macky Sall nag ba mu leen waxee ne la naa ko jëfee. Hmm. dafa waroon a fexe ba du génn. du génn du génn du génn 2 avril. léegi tamit nag maanaam Sénégal yi man d'accord naa si benn côté. nañ may euh, bay boo ñu violé conseil constitutionnel ndax ñaari weer du dara 2 avril ak 2 juin. conseil constitutionnel nay na wax ne Macky Sall na ko li nga waroon a def day defoo ko bind bind bind nangam nangam buñ fa jógee nag amaana mën nañoo am ay correction yoo xam ne ok ñu jékki-jékkalaatee fii kon kon lii xeeñ mooy président Macky Sall toog waaw parce que dialogue bi aussi package la dañ ni organiser élection yi le deux mais président Macky Sall assurer transition bi waaw boobu mooy bi gën xam nga pour que ñu am passation xëy na Macky Sall passation bi force mu am damaa bëgg passation bi am hmm. ndax Macky Sall dafa am lu muy ragal si passation ndax xam nga passation de service bi Macky Sall moom Macky hmm. yi génn ci kaso bi di dafa Macky Sall passation de service kàcc la ci Macky Sall moom bu ko leeroon ne Amadou Ba man waaw léegi nag léegi nag léegi nag léegi nag Macky Sall moom si boppam euh, Fatou. est-ce que du reddition des comptes bi. xam nga tamit Macky Sall ak ñi mu àndal ñëpp ñi demoon si dialogue bi ñi nekkoon ñëpp jëm ñaajo di wax si dialogue bi ñoom respecté wuñ conseil constitutionnel respecté wuñ te conseil constitutionnel boo ko respecté wul respecté woo Sénégalais conseil constitutionnel ay armée ak police ak gendarmerie ak administration beeg président beeg ñépp mu neex leen mu na ñun ñoo ko wax de ñoo ne ko yow loo jëfee baax naag baaxut ak lépp ñun d'accord nañ ci man dama jàpp ne dem ci conseil na naan ko dañuy ubbiwaat liste bi di dugal ma Samba ak ma dem manque de respect foofu la commencé ndax ñun ñoo ndax bu conseil constitutionnel léegi boo ko ubbiwaatale nooy def conseil constitutionnel bu xasee ba tëj amul ubbi day jël caab ji sànni géej fan lañ fan lañ jëlee caab ji fan lañ foree caab ji c'est que xam yooyu. Mm-hmm. yooyu dafa nekk yoo xam ne dafa dafa dafa dafa mm-hmm. dafa ñaaw sax ci Sénégal mais mm-hmm. mais surtout président Macky Sall. man Macky Sall am na ci loo xam ne man euh, xaaruma ko woon ci moom. Mm. ndax euh, man nag ba ma dañ ba ma gis boolee ci ñi nga xam ne dañuy jalgati ay loi sax yàgg na.